sant yàlla euh, am mbégte lool tey ñëw euh, taxaw ci wetu euh, président fédération sénégalaise u basketball maître Babacar Ndiaye pour jox leen tableau d'affichage magnétique bu leen ville de Dakar jagleel ndax basketball bi ñu mën ko gën a taaral fi Dakar te ba may waxtaan ak moom tamit ñu ngi euh, xool lan la ñu mën a def ak surtout CNOS euh, ak CEO di profiter ci occasion bi pour jaajëfe euh, suñu xarit di suñu soppee le président Diagne Ndiaye pour que ci organisation Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ville de Dakar mën a bénéficier ci ay retombées surtout en termes d'infrastructures sportives donc moo xam ci piscine olympique moo xam ci stade Iba Mar entre autres ak yeneen bërëb biir ah, Dakar suñu amee yaakaar ne ni que euh, mën nañ fa am ay retombées euh, yu jógee ci organisation Jeux olympiques de la jeunesse ma bëggoon tamit euh, wax tamit volonté au ville de Dakar pour jàppale sport en général mais yenn activités en particulier par exemple tey biir Dakar incha allah ci mandat bi bëgg nañ que commune bu nekk biir Dakar bu mën a am benn terrain synthétique pour euh, que xale yi mën a am fu ñuy euh, euh, footballé mais xale yi tamit xam na ni que am na yeneen perspective d'avenir que malheureusement mbëkk gaal wala di jël ay yoonu suuf parce que tey je crois que lii di sport ñëpp d'accord nañ ko vecteur développement donc euh, ñu ngi encouragé fédération sénégalaise bu euh, basketball yéen gis ngeen résultat bu fédération bi jot am ci dernière coupe d' Afrique euh, ak équipe féminine finaliste de la coupe d' Afrique leen di jaajëfee donc ñëpp xam nañ que Sénégal dëkku basket la donc ñun tamit ñu am ci contenté lool tey taxaw ci wetu fédération sénégalaise bu basket leen di gunge leen di jàppale donc leen di encouragé tamit. te leen di ñaanal yàlla na leen yàlla gën a kàttanal yàlla gën leen yokkal sutura. voilà moi mes mes mots ce sont des mots de remerciement à l'endroit de monsieur le maire de la ville de Dakar pour le magnifique tableau magnétique qu'il vient d'offrir à la Fédération sénégalaise de basket. Bon, c'est pas une première et ça ne surprend pas non plus. parce que depuis son avènement à la tête de la mairie de Dakar, il a considérablement aidé euh, le basket sénégalais. Pour preuve, il a multiplié, je dirais même par deux, la subvention accordée à la Ligue de Dakar pour lui permettre d'organiser la Coupe du, maire. Donc merci Monsieur le maire pour ce magnifique geste que vous avez fait. Et je sais que vous ne dit tout à l'heure. Et Inch'Allah, au niveau de la fédération, nous allons effectivement commencer à développer une collaboration avec la mairie de Dakar qui va nous permettre de développer notre discipline. Euh, je garantis qu'on fera bon usage de ce tableau et on verra également à son entretien. Parce que c'est ça aussi qui est important. Merci beaucoup. waaw damay d'abord di sant monsieur le maire de la ville de Dakar monsieur Barthélémy Diaz parce que lii nii quand même tawatu basket la woon mu ñëw may ñu tableau magnétique bu nga xam ne nii eh, tableau bu bees tàq la gis ngeen ko fédération dañ ko commandé eh, Turquie dugal ko si avion mu ñëw te dim ñu joxoon sax weccet bi des na donc ça veut dire que effectivement dañu doon une subvention de quinze millions bu nga xam ne ni permettre nañu jënd tableau bi fay frais yi ba desal sa weccet bu nga xam ne mën nañ koo utiliser pour le fonctionnement de la de la fédération loolu nag bettuñu parce que euh, bu mu ñëwee ba léegi mu ngi jàppale discipline bi parce que tamit si la bokk aussi parce que loolu tamit nit ñi war nañ ko xam famille am la famille basket euh, coupe maire de Dakar bi nga xam ne nii bi muy ñëw mu ngi ko fekkoon si benn somme augmenté na ko ba léegi ligue Dakar si lay organiser jox si équipe yi mais si lay si lay jël tamit pour organiser match de petite catégorie donc budget mën nañ wax ne presque budget euh, Ligue Dakar mooy subvention bi nga xam ne ni moom la ko mairie Dakar di accordé donc ñu ko si sant du ko gërëm di jël engagement que effectivement tableau bi dinañ ko utiliser bu baax ak fi ñu ko war dinañ ko entretenir aussi pour garder ko mu mën a servir génération génération yu bëri merci